directeur jeexal euh, si troisième mandat bi dafa melni question bobu mom duma la ko posé parce que damay bañu dakh la bo si commandé dañ lay euh gis nañ maître Moussa Diop mom mo nek dernier victime dernière victime li nga xamantene mom mo nek nekk troisième mandat état démocratique ni lay doxé waaw ah, mais ku la wax di troisième mandat. motax ñu dakh ko. non je suis désolé dafa taxaw sen TV ne Macky Sall waroon mais mais mais man analyse bu ma ci def. Hmm.

falal maître Moussa. mom mo jël en âme et conscience ci constitution lu ko denk mu ni ko yow denk na la Dakar Dem Dikk waaye mais mom amul sañ-sañ bu toogee ba si yàgg ni yow légui sa mission jeex na. foofu mais jamono bi mu ko def. wa xaaral ma jamono bi mu ko def directeur mais mais ken du ko ka sakal président mom mo yore agenda am. mais war na xaar ba kii nii génn def déclaration. mu def ko xam nga déclaration bobu xam nga man munu ci munu ci soré xam nga lu tax. Mhm. déglu naa ko mais en tant que un homme un homme public man. man un homme public c'est-à-dire que quelqu'un bi nga xam ne dafa nekk ci station. publique koo xam ne Macky la fal. non non station publique. xam nga Macky ba ma falee. Hmm. dafa ma fal ci règlement ak loi ak constitution Sénégal dafa am li nga xam Macky Sall même bu ko bëggoon. Hmm. ci man mu nek la nga xam constitution permettre quoi, règlement permettre ko man mon ma def. d'accord mais dafa am li nga man en tant qu'homme d'État. Hmm. homme de pouvoir ñu dénk ma alalu askan bi nit ñi di ma déglu Nous am li nga moi je suis pas un homme libre pour wax ni ma non non non du tout. d'accord mais Mali. Hmm. mais sunu nawle la. moi je suis pas un malin. pourquoi hmm. man may may prononcé wu ci affaire Mali. ma nekk un public. kon jàpp nga ne erreur la def erreur la def foofu de dama def analyse. dama def analyse. Je je suis pas là pour juger qui que ce soit. Hmm. mais man Pape en tant qu'homme public man je me garderai. Hein de de de de faire de l'ingérence de coup d'accord diplomatie. leer non état président de la république troisième mandat non Macky troisième mandat Nous aucun accès nous ci ñu nous accès période mu hmm. dañu nous le président Macky Sall pour cinq ans pour nous liggéey réew nous hmm. bu les cinq ans mu nous mu dem ñu xaar que hmm. ci la nga d'accord ci la nga xamni moy xeyu ndaw yi li nga xamni moy infrastructure yu mi def yi nga xamni moy mooy wàllu ndox mi li nga xamni mom mom moy pétrole ak gaz bi. d'accord donc c'est ça. est-ce que c'est cas yooyu bu jeexee directeur maki warna dem. wala maki warna na doon doon demandé waat loolu loolu ci àgg. et on est dans un pays organisé moi je suis dans un parti organisé qui est la l'APR et j'attendrai que sunu parti wax ci bu soobee Macky bu né une fois dina def 3e mandat. no linhogulo.